salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi vraiment par là man damaa rus dama rus ci Omar saw ànd ak nit ki di ko tagg tey mu wàcc pouvoir nga di ko xas ak di jël dërëm bi di ci teg lu ñaaw Omar saw damaa rus doo fu ne lan dem fekkante ci président nga may wax ay kàddu yoo xamante si nii ci président tey boo ñëwee di ma waxaat lii damay ñëw ne la Omar Sow kon yow nit ku foo nga président de la république nit ku baax la Macky sàll kenn gënu ko man ki Macky laay dee dinaa jàppale juma yeeg ñëpp ñu liggéey réew mi mais Macky laa xam man Adamo Macky laa bëgg Macky kenn du moom Macky li liggéey senegal mindeef dootu liggéey ci réew bii ñi ngi ñaanal nag juma yi mu egg foofu yaa ngi dégg wala fu raw ndax ñun senegal moo ñu ñor mais Macky ndaanaan la Macky garmi la Macky gor la yéen ñëpp defal na leen teraanga ñàkk moo waral lii waa Pastef waa Pastef kii bu leen ko sax di may opportunité muy wax kii du nit xoolal gis nga kii li leen metti mooy ñoom dañ doon jàppale Amadou Ba danoo bëggoon Amadou Ba gañee jumay bu Amadou Ba gañee jumay ñu fal leen premier ministre wala poste boo xamante ni day baax ci ñoom bu doon seen arrangement léegi nag ba jomay gañee ba tey xol yi dafa bon eh jomay fay ba mu jëlee réew mi ba tey kenn ci ñoom ñëpp nee nañ tor bi Macky Sall la Macky Sall lañ ko teg yow yi liggéey li muy liggéey Sénégal ñu teg seen projet Ousmane ko jaay projet bi sénégalais yi jënd ko jeunesse bi jënd projet bi gagné réew mi du gëm yàlla nan gëm yàlla Omar saw nan gëm yàlla il faut ñu gëm yàlla il faut ñu nangu gëm yàlla Diomaye yor réew mi séeréer la moo koy diriger Amadou ma mën mii sax moom laa doon jàppale mais ñàkk na yàllaay dogal ñàkk mais bu jël affaire yi di ko sippi Macky Sall naan moo ko campagnal moo ko jox ay oto makisal la ko def nangam am na talaata am na jet privé 30 milliards pour waa Pastef yeeg booy yi di la commentaire merci Omar Omar génneel dil bi xamul dara maay wax ak yéen Omar Sow xam naa ko bu baax xamul tus ci li muy wax nguuru jomay gi moo leen metti nguuru jomay gi lan mun ta kontaan doo nit man gor laay doon ba ba may dee Omar saw Omar président ku baax la yal yàlla guddal fanam mérito lu de barki alxuraanu karim Macky yal na yàlla guddal sa fan foo dem yal na fa yàgg yow way wu neex ak wu rafet nga am senegal sa der du mos a yàqu ci réew mii li nga liggéey ba Afrique yeex adduna bi teg nañ ci seen bët yàlla nga gudd fan Macky Sall nous sommes tout derrière toi leen kàddu yi ma Omar saw doon wax ba muy ànd mag Macky ngeen xam ne kii dafa foo lu leen ma tegal leen ko ma tegal leen ko Adamo ziar naa la moom frère mais Adamo wax dëgg yàlla xol bu rafet nga nit ku baax nga parce que nit ku baax rek moo moo na bëgg Macky Sall Macky ko bañ a xamal nit ko bon nga parce que ñu ñoo jaar ak moom yooyu ànd ak moom dëkk bu ñu ut nguur ba tey ànd ak moom gune ba tey am at yu yàlla may li nga wax moom ci sa xol nga ko tibbee tey xam naa li nga wax te loolu la ñun ñëpp jànd moom tey nekk moom du alal du dara la xaar ci moom mais dañ ko bëgg parce que dafa bëgg nit xam nit xam cofeel respecté doomu aadama parce que loolu lu jafe la Macky ku baax la te boo seetloo rek lu baax lay am te yàlla lu baax la koy defal te lu mu song rek da ciy am dam bu soobee yàlla moo tax yow tamit a ne di nga am dam ci loo nekk rek nga gën a góorgóorlu gën a bàyyi xel ci sa yaay gën a bàyyi xel ci am ngay soppe am ngay sëriñ yi lay suivre am ngay kilifa ba président ñëpp donc tey di jéggale lu bëri di yow tamit di jëlale di baal ñëpp di boole di jàpp di di bàyyi lu bëri bëri xam ne àdduna amul solo dina loo gis rek day jeex man wax dëgg yàlla maa a gis ci tournée mais gis naa ci yow nit ku am kersa gis naa ci yow nit ku baax nit ku am yar mais continué ci loolu am nga loolu yëpp am nga ko bëggee woo doo nit koy ñaan xaalis doo nit koy vraiment doo nit koy sonal kenn. mukk xaw ma benn ne na la Macky may dara wax dëgg yàlla loolu. ko ci kenn bëgg Macky Sall man ci laa la bëgg loolu man la ma wax man ku bëggul Macky Sall yoon nañ a mbéy ku bëggul Macky Sall te loola Macky ba nit di ko bañ Macky Sall nit ku baax la te nit ku xam bëgg réew mi la te nit ku liggéey réew mi yow tamit aussi a góorgóorlu la te suñu réew la ñi def la erreur ba ngay def erreur nit ñi ñoo bon bëgguñu ko baax yow xamal sa yaay doomu séeréer nga taalibe Cheikh te fu baax nga jóge donc dama war a baax war a xam ne Europe bi liggéey moo la fi teral say waajur mel ni ñëpp mel dawal say kat-kat yi tabax ci oto yi yóbbu say ay màkk yóbbu say mbokk de teral say waajur teral ñëpp en tout yi maa la man a la ko te nga a góorgóorlu jërëjëf jeex na kaddu yi yaa tamit ku bëggul Macky Sall ku bëgg a yàq ma teg la sa kenn gënu ko kaddu yi rek non non non non gars yi jubay yàlla na am jàmm